bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim alxadisu alxaamisu juróomeeli xadis ci ñeen fukki xadis yi alimam annawawiyu rahmatullahi alayhi dajale nañu ko yàlla boole fayal nee na an ummil muminina mm-hmm. jëlee nañ ci ndey jullit yi mm-hmm. kookan la ummi abdillahi mm-hmm. ndey abdillahi turam mooy aishatu aishata ndey aishatu radiallahu tabaraka wa taala anha tuddee nañ ko ndey ndax képp ku de yonentu sallallahu alayhi wa sallam denc rek suñ ndey la annabiyu awliya bilmuminina min anfusihim wa azwaajuhu ummahatuhum la yàlla wax yonentu moo gën a xeey jullit ci seen bopp sax te soxnaam yi seeni ndey lañ looloo tax soxna yonentu daganut gannaaw yonentu kenn ci xeet wi denc ko ndax kenn du mën a denc ndeyam nag wala an tankixu azwaajahu min baadihi abada wala yàlla wax amuleen droit denc ay soxnaam gannaawam inna dalika kaana inda allahi azima in tubdu cheyan aw tuxu fa inna allaha kaana bi kulli cheyin alima booba seytaan ne ngeen liggéey saxaaba yi seen xol yi gën a baax waaye terewut seytaan ne ngi leen di rafetalal ne bu fi yonentu jógee kat yow mën ngaa denc diw mhm. yàlla dal di raxas loolu xaat mhm. ngir ñu mucc mhm. ummil muminina kan ummi abdillahi ndey Aysatu moom lañ daan dàkkantale yaay abdullahi moo lu tax ñu koy wooye yaay abdullahi te moom amul doom ñu xamee ci ni sëy de doom xorom la ca hmm. waaye du ca charte pour mu neex nag hmm. ndax sëy yonantu sallallahu alayhi wa sallam ak ndey hmm. dàqut ko te yàlla bindut ca doom waaye ñu koy dàkkantelee ummu abdullahi ndax am na jarbaatam bu ñuy wax abdullahi binu zubayr moom moo ko yar abdullah ibnu zubair hmm. doomi ndey asmaawu la hmm. ndey asmaawu hmm. seydina abubakar a ko jur mooy magi aïchatu ñu mayoon ko seydina zubair zubair ibn al awaam zubair doomi bàjjeni yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ndey safiyatoo jur xamsatu ñoo bokk ndey waaye Zubayru tamit awaama ko jur hmm. awaam kon Zubayru day Xadija mi xam ne mooy soxna yonent bi bàjjanam la hmm. Hmm. awaam mbokkam Xadijatu la Zubayru mii nag moo denci asmaa wu am ci Abdoulaye comme Aïchatu tàntaam la nag te arab dafay wax ne alxaalatu bi manzilatil ummi tante mi ngi ci wàccuwaayu ndey mu takkoon nag ndey Aysatu lool bari lu mu jàngee ci moom mu mel ni sax moo ko yar ñu koy dàkkantelee Umu Abdullahi abdullahi ibnu zubayr mm-hmm. zubayru mm. bokk na ci fukki yi yonentu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. bégalee aljanna ci jenn xadis mm-hmm. abubakar omar uthman ali ak zubayru mi ibnu alxawaam talxatu ibnu ubaydillahi abu ubaydata mooy amir ibnu aljarax abdurahman mm. ibn awf mm. mm. yi yonentu leen ci benn xadis bégale leen ñoom rekk nag waaye xadis ji ñoom rekk a ci ne moo tax ñu leen tuddee al asharatu al mubasharatu bil jannati radiallahu taala abdullahi ibnu zubayr doon jàmbaar lool bokk ci abaadilatu yi nga xam ne ñoo gën a siiw ci lislaam hmm. Abdullah ibn Zubair pour petite histoire hmm. mooy ki njëkk a juddu hmm. gannaaw gàddaay gi ci madinatul munawara asmaaw xam nga ne bi yonantu sallallahu gàddaay mook seydina abu bakar moo leen doon topp tool yi ñu soxla woon di leen ko indil ci xur wa waaye boobu mu nga ëmb Abdullah ibn Zubair bi mu yegg see madina rek mm. la ko jur mm-hmm. moo tax moo njëkk a juddu ci doomi muhajirina yi mm-hmm. ci madina mm-hmm. yilifoon na it xijaaz mm. mm. ci jamonoy bana umayya te xeex naak ñoom ba moo yilifoon makka nekk fa sax xalifa ba xajaaj ibnu yusufa ko mujj rey tabaxu kaaba gu mujj gi ngay dégg mm-hmm. moom mi dafa laajoon ndey Aysatu xadis ji yonantu wax ne bu dul woon Quraysh liñ gëj liñ nekkoon ay ceddo mm. te nekk tuubeen yu bees mm. konoon danaa tabaxaat kaaba gi ni ko Ismaayila ak maam Ibrahima tabaxe woon mm-hmm. ndax Quraysh mm. jamono dafa ñëw kaaba gi am jafe-jafe lakk hmm. ñu koy tabaxaat hmm. waaye ñu ne nag gannaaw kaabaak yàlla gi la hmm. te suñu alal yi duhut lépp a lew kaaba gi moom duñ ci dugal du lewut duñ ci dugal alali riba duñ ci dugal alal joo xam ne daganut bañ dajalee seen alal yi lew nag matewut ni kaaba gi meloon moo tax ñu wàññi Euh, rëyaayu kaaba gi ca jamono jooja mm-hmm. boo demee tey di wër kaaba gi am na cercle booy gis mm-hmm. moom lañ tuddee xijru ismaila mm-hmm. ci kaaba gi la bokk waaye Quraysh ba ñuy tabaxaat kaaba gi amuñu woon budget bu mat te bëgguñ caa dugal lu daganut moo tax tabaxaale wuñ loolu waaye booy wët nag yow danga koy wëtaale lu tax ndax ci kaaba gi la bokk boo jullee ca biir xijir ba mel na ni julli nga ci kaaba gi yonantu mas naa julli ci kaaba gi hmm. te du ñëpp mën a julli ci kaaba gi te ku sañoon def li yonantu defoon hmm, hmm, sallallahu alayhi wa sallam sayyidna mi ma lay nettali bi yonantu duggee ci biir kaaba gi ci fatxu makkata bi mu génnee moom moo njëkk a xàkk bilaal na ko lu yonantu bi def ci biir mu ne ko wan xone ko dafa julli mu laaj ko jullee ndax moom mu mën faa julli moom it yonent bi gannaaw jul na ci kaaba gi mhm. te léeg-léeg nga gis kilifa dem ñu ubbil ko ko mhm. te du ñëpp kilifa yu ñuy ubbil foofu mhm. te ku nekk ba ganaar roy yonent ci jëfam soo duggee ci xijru ismaila julli fa rek mel na ni julli nga ci kaaba gi yow it moo dugg ca biir pour julli boo fa jullee julli nga ci biir kaaba gi baax na waaye sooy wër nag soo ko wëraale wut moom cercle baaxut Abdullah ibnu Zubayr na bi mu déggee xadis jooju mu laaj ko ndey Aysatu mm. mu ne ko dëgg la yonent ko wax mm-hmm. mu daal di tabax kaaba gi na ko yonentu bëggee woon mm. waaye bi ko ab xajaaj euh, rayee nag mm-hmm. te booba ma nga ca kaaba ga mu bombardé waale kaaba gi mm-hmm. bi mu koy tabaxaat la ko delloowaat ni ko Quraysh tabaxee woon wóoru julli di laaj na imaam Malik ne ko ndax ñu tabaxaat ko ni ko yonantu ngéejoo woon te Abdoulaye defee ko woon defee woon defee tabaxee ko hmm. woon Malik ne ko déedéet ba ko nii hmm. damay bañ kaaba gi nekk foowukaayu buur yi ku ñëw rek def ci lu la neex hmm. wax nañ ni malaaka yee njëkk tabax gannaaw malaaka yi maama Adama gannaaw ga ma Ibrahima Eh, tabax na ko maanaam hmm. nag moo tax bi koy tabax hmm. fondement yaa nga fa woon wa id yarfau ibrahimu hmm. alqawaida la yàlla wax min al bayti kon fondement yaa fa woon moog ismaila jurhum tabax nañ ko nañ naa maaliqatu tabax nañ ko quraysh tabax nañ ko eh, ak tabaxu abdullahi ibnu zubair ak tabaxu xajaaj bi gannaaw ga nag yokk jàkka ji lañ def mm-hmm. uh, ni ko gisee ba léegi ñu ngi koy yokk muy gën a mag mm-hmm. yal na yàlla gën koo xaar mm-hmm. aïchata mooy ñaareel mbaa ñetteelu soxnaa yonantu sallallahu alayhi am na ñaar fukki at ak juróom mook sayyidatuna Khadija wutalu ko wujji bi ko yàlla jëlee atum fukkeel hmm. ci eh, yonantu gi hmm. fekk yonantu bi am na juróom fukki at hmm. taala anha ci benn semaine mook baayam ju bu baax ba abu talib la yàlla jëloon jëlandoor at moom la ñu amal xuzn ci la yonantu denc ndey aysatu dencit ndey sawdatu wuute nañ ci kan la ci njëkk denc mm-hmm. ñii nee nañ sawdatu la njëkk a denc mm-hmm. am na ñu ne Aïcha la njëkk denc waaye sawdatu la njëkk a jël mm-hmm. Aïchatu may nañ ko ko ba ni muy gàddaayee Madina Aïcha sëy si wut radiallahu taala anha bokk nag ci ñi nga xam ne mm. ñu ëpp luñ solo xadis ci yonantu bi sallallahu alayhi wa saxaaba yi mm-hmm. moo tax bari na lu saxaaba yi daan jaaxle mm-hmm. dem di ko ko laaj mm-hmm. yonantu waxoon na ne jëlee leen seen genn wàllu diine ci ndaw su xonq sile xudu nisfa diinikum min hadihi alxumayra ndax lu yonantu wax rekk bu ko déggee mokkal ko moo tax kenn ëpp ko xam-xam ci lislaam bokk gi it kenn gënu ko koo xam mm-hmm. ndax bàyyam a ko ko jàngal Aboubacar a gën a xam ni arab yi bokke mm-hmm. wàllu médecine sax yàlla mayoon na ko ko ndax ku mos ñëw ci yonent bi xam dara ci médecine mm. daf lay seetaan loo ca def mu jàpp ko dootu ko fàtte mm-hmm. na ci ñi gën a xam ci xeet wi xaalat nee na mm. qaala ki yàlla yebaloon suñu sang sallallahu alayhi wa wax na ne man ahdatha ku sos fii amrina ci suñ mbir mi haada mii maa loolu laysa minhu bokkut ca fa huwa loolee raddun ay mardudun luñ ko delloo lay doon suñ mbir muy suñ sharia képp ku sos hmm. dara hmm. muy ak jaamu hmm. yoo xam ne amul ca tegtal yu ci téere yàlla bi amul ca tegtal yu jógee ci sunna yonantu sallallahu alayhi wa ndax jaamu yi yëpp dafay dellu ci lu yàlla wax ak yonantam képp def loo xam ne nag mënoo koo delloo ci waxi yàlla ak yonantam mu ne jaamu googoo dañ la koy delloo jëf jooje dañ la koy delloo rawaahul buxaariyu wa muslim mu ne wa fi riwaayatin li muslim am na riwaayay muslim sax joo xam ne fa ne man amila ku jëf amalan jëf juj laysa alayhi nekkut ca amruna suñ ndigal fa huwa moom jëf ja raddun lu ñuy delloo la daal joo gis ñaaray tax mu wér mm-hmm. bu njëkk ba mooy al ixlaasu lillahi azza wa mm-hmm. sellal ko mm-hmm. yàlla rekk tax jëf lu mu baax baax su yàlla taxut du baax su yàlla taxut du ko nangu ñaareel ba mooy al mutaabaatu lir rasuli sallallahu alayhi wa topp ca ab yonant bi topp ca yonant topp yonant bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. fa man tabi'ani hmm. fa innahu minni loolu la maam Ibrahima waxoon ci alquran hmm. ah, qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni ah, ku bëgg yàlla mbaa nga bëgg lu ko neex li ko neexan ci li yonant bi jàngale sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kon bépp jëf mm. lum niru niru lu rafet mm. fekk amul tegtal ci njubal yonent bi mm. yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na dañ koy delloo loolu la ñuy tuddee bidaatu dalaala mm-hmm. yonent sallallahu wa sallam wax na ne fa inna kulla muxdathatin bidaatun mm-hmm. wa kulla bidaatin dalaalatu mm-hmm. lépp sos bidaa la bidaa ak la waaw ne luñ sos nag hmm. mu bokkut ak li ko ñenn ñi di firee luñ sos hmm. maanaam bidaa hmm. ni ko sayduna euh, Shafii fire rek la do mooy loo xam ne dañ ko sos te amul cosaan ci diine lépp lu ñu sos te amul cosaan ci diine looloy bidaa waaye luñ sostam am cosaan ci diine hmm. am na cosaan ci alxuraan ba am na cosaan ci e, xadiisu yonantu mbaa jàngaleem hmm. kooku duñ ko tuddee bidaa hmm. wala suñ ko koy tuddee dañ koy tuddee bidaa xasana li ciy tegtal mooy yonantu sallallahu alayhi wa ku yoonal ci lislaam yoon wu rafet sunna xasana mm. sunna su rafet mm. yàlla dana yool kooku mm-hmm. yool la ci ci képp koo xam ne defati na ko mm-hmm. te du wàññi ca yoolu kookoy dara mm-hmm. moo tax bidaa léeg-léeg boroom xam-xam yi mm. dañ koy séddale ñaari xaaj bidaa bu ñu ŋàññ ak bidaa bu ñu sant bidaa buñ ñi mooy lépp luñ sos ci diine te amul cislaay mm-hmm. bidaa bu ñu sant sant mooy luñ sos ci diine te mu am cislaay alquran mbaa mu am cislaay ay sunna mm-hmm. am na sax ñu ko def juróomi xaaj mm. xaaj bu war xaaj buñ sopp mm. xaaj bu dagan xaaj bu sip mm. xaaj bu ñu euh, bu ñu xaraamal boo mm-hmm. liiree ku mel ni cheikh Izzuddin ibn Abdusalaam hmm. ci taqsimul bidaati hmm. loolu nag ku ko xam da nga mën a eh, yaatu dënn hmm. moo tax léeg-léeg nga dégg kuy gis kuy feetee juddu yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ko saxaaba yi defoon nañ wala waxuñ la ko daal dine ay ca kon bidaa la da fekk yëf gën naa technique noonu nag mhm, mhm. bu dee jëfi yonent bi moom hmm. nan la ñuy delloowee ixtifaal ci njubam hmm. dañuy wax ne yonent woor na altine ñu laaj ko lu tax hmm. mun na ndax ci laa judd kon yoonal na ak jaamu yàlla ngir sant yàlla ci xéewalug juddoom li muy firi mooy kon nit ki mën naa jaamu yàlla santee ko yàlla ci xéewal gu ko yàlla defal Mm-hmm. te ndax benn yoon la koy def déedéet yonent bi daf daan def lii altine ju jot mm-hmm. kon kum neex altine ju jot nga jaamu ci yàlla sante ko yàlla mm-hmm. judd ci yonent bi judd ci bés boobu ndax yonent bi kat xéwalug juddoom mooy xéwal gi gën a mag ñeel jaam ñi ndax ci la leeral yàlla gi ñëw qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun gi mooy yonent bi kitaabun mubin ji mooy alquran ci qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrah te yonent bi mooy rahmatullahi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina yonent yi dem na Madina gis yahud yi di woor bésu tam xarit lu tax ngeen koy woor bés bii ci la yàlla musaloon Muusa ñun kay ñoo leen gën a xëy ci Muusa ndax ñun ñoo ne ci li Muusa ne woon woor ko digle ñu woor ko mm-hmm. ni ko imam Suyuti nettalee imam ibnu Hajar al nettalee ko mm-hmm. ne foofit yaa am yonent mm-hmm. gu yàlla xéewalee nga jëf ak jaamu yàlla sant ko xéewal googu saa yu bés ba xéewal ga amee woon dellu ni ko yonentu diglee ci weeru tamxarit kon noonu ngay jëlee atte yi delloo leen ci seeni cosaan boo leen amalee cosaan ci alquran ak sunna bu la ne sunna la nga ne bidaa xasana la mm-hmm. soo leen amalut cosaan ci alquran ak sunna nag mm-hmm. lum rafet rafet mm-hmm. dañ koy sànni ndax yonent bi kat lañ ñu toppaloo yonent bi lañ ñuy toppaloo kaana xubbuka saadiqan la taatahu inna almuhibba liman yuhibbu mutiiu loolu mooy li nga xam ne hmm. mooy li wér ci euh, bunt bile hmm. euh, wax yi nag léeg-léeg mu bari hmm. waaye li may wax ma ne borom xam-xam nañu wax ne almuxtalafu fiihi laa inkaara fiihi luñ wed luñ wuutee te wuutee ga am cëslaay jarul sonal sa bopp li ci diingat waaw ki d'accord ci ne lii mën nañ ko delloo ci sunna wala mu tuddee ko biddaa xasana ngir dellu gi mën a dellu ci njàngalem yonantu na ko def mm-hmm. ki ci na ko ba mm-hmm. te ñu dem ci yeneen yi gën a amal njëriñ na xeet wi mm-hmm. waaye mu jot rajo yi ak télé yi di rey ak ni rey nit ñi gàmmoog nangam ak nangam ak nit ñaa ngi avancé xam-xam bari na waaye mu mel ni ñun ñaar naka ñaari masala yooyu rek la ñuy waxtaanee loolu retard la gu rëy rëy kon nag loolu mooy xadisu tey ji man ahdasa ku sos hmm. fi amrina ci suñ mbir mi haada mi hmm. ma loo xam ne laysa minu bokk ci fa huwa raddun hmm. loolu lu ñuy delloo la man amila ku jëf amalan jëf laysa alay di ca nekk amruna suñ ndigal wala amruna suñ mbir fa huwa jëf joojee raddun lu ñuy delloo la nañ yàlla dimbali suñ jëf yëpp tegee ci alquran sunna yàlla bu ñu yàlla delloo dara yaa rabbi hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin amin ya rabbi alhamdulillah